salaamaaleykum mbokku katu réew mi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre jotaayu ndaw ñi la fii ci réew mi FM lay amee euh, mercredi bu jot 15h jàpp 16h fii ci euh, réew mi FM tey ñu dalal Pape Goumalou Dione attaché aux affaires culturelles et éducatives de la délégation générale du Québec ak Stéphane Senghor euh, moo di coordonnateur du World Cleanup Day initiateur bi fii ci Sénégal ñu ngi xaarandi Pape euh, Songué Diop euh, nekk maire de la commune de Gandiaye waaye itam PCA euh, du patrimoine bâti de l'État lañ fi fas yéene waxtaani mooy la propreté l'apport de la jeunesse euh, maanaam cet gi fii ci Sénégal bañ la lan la ndaw ñi euh, mën cee indi euh, ku ci bëgg a participer rek euh, numéro yi wax ngi dégg ngeen ko ci bande annonce bi 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ñetti numéro yi boo ci wax rek bësal plus 1 nga daal di bokk ci waxtaan bi bitim réew tam am na euh, numéro dinaa leen ko jox ci kanam Mor nga ñëw rubrique actualité balaa ñuy dalal gan Euh, voilà donc euh, salaamaaleykum euh, à tous les auditeurs ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ngi seetaan lii di réew mi FM ak réew mi officiel ci suñu plateforme digitale yi donc di lu nuyu di la dalalaat ci émission bi di dalal aussi suñu invité tey ñu war a waxtaanal tey ci fànn yu bëri bëri bëri donc ci ay thèmes yu am solo donc comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi taamu jamono ji di seetaan yi nga xamante ne moom mooy réew mi. FM à travers émission Espace Jeune sans filtre. Mhm, actualité. waaw actualité a perdu du temps. waaw voilà donc actualité bi nga xamante ni moom la ñuy euh, njëkkee ci li nga xamante ni moom mooy euh, tey mooy coow li nga xamante ni moo lëmbe tey euh, internet bi muy ki nga xamante ni moom moo doon dal ci kaw Macky Sall naan. Fuuta Tampi Fuuta Tampi léegi mën nañu wax léegi euh, Fuuta Maay léegi léegi Fuuta neex na mhm. euh, léegi mujjee naa euh, léegi daal tampaw de xamam xamam wéli daal wéli mun nañu wax léegi Fouta Weli léegi moom moo de am benn retournement situation bu garaaw boo xamante ne Sénégal ñëpp jaaxal na leen mhm. nan la Fatou mën a mën a jékki-jékki ñëw léegi euh, daal di mun ne léegi léegi lépp lépp neex na léegi day ànd ak Macky Sall ak li mu yàq yëpp mhm. donc euh, cela veut dire que instant Sénégal daal léegi lu la politicien mun na wax lu dul euh, nangam laa sant je pense que waaw nee ko nee ko oho rek wala nga def benn point d'exclamation parce que mhm. je que politiciens yi waxee politicien je pense que euh, fu nekk ni pour Sénégal gëm ñenn ñi li ñuy wax sax c'est tout à problème mhm. donc bu nekk loo xamante Sénégal te ba ñu yeewoo ñu bëri jaaxal na leen nan la euh, Fatoumata mënee jékki-jékki rek ne léegi euh, Macky léegi dem na sax ba ne sax dina def li nga xamante ne moom mooy tournée ngir mën a fësal li Macky Sall def foofu nga xamante ne moom mooy Fouta parce que nee na fu Macky Sall mi ngi fay defar tëli mu ngi fay defar hôpital te yooyu yëpp je pense que ay temps nangu ko wax mhm. wala xamante ni dañ daa dañ daa woo suuf rek jox la benn saaku ngooñ da nga daal di euh, wooy Macky Sall ay maam ak taggal ko ko mu nekk loo xamante ni bon euh, bu ñu bett daal bu bu bu kenn ñëwaatee def ko euh, bu ñu bett parce que c'est le Sénégal moo demee noonu merci Mor Fall je pense que monsieur le maire bu fi toogoon tey mën na ci indi ay leeral mun nañ jàll donc ci li nga xam ne moo ñu fi tax a toog tey li fi tax a toog suñuy gan journée mondiale du nettoyage ñu gën ko xam ci World Clean Up Day ñu ngi ko doon màggal Euh, dix 18 septembre bi ñu génn samedi bi ñu euh, génn ci àdduna si wërngal këpp tey ñu dalal fii ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko initié fii ci Sénégal euh, Stéphane Senghor coordonnateur du World Cleanup Day au niveau mondial ak initiateur fii ci Sénégal ma jox la kàddu gi Stéphane bàyyi la nga nuyoo teeg mbokku auditeur Rewmi FM. salaamaaleykum maa ngi nuyu auditeur Rewmi FM ñu ngi déglu fii ci Sénégal ak bitim réew. Mm-hmm. Merci pap Goumbalo Dione attaché aux affaires culturelles et éducatives de la délégation générale du Québec moo tam bokk na euh, ci journée boobu euh, ma bàyyi la nga nuyonteeg mbokk auditeurs Rewmi FM. Merci beaucoup Madame Faye bonjour tout le monde bonjour à tous les auditeurs de Rewmi FM déjà merci pour mm-hmm. Euh, ben voilà, donc euh, c'est Pape Dione mhm. euh, merci beaucoup euh, Stéphane man ci yow laay tourner World Cleanup Day à quoi ça consiste naka la liggéey bi di demee. bon en fait euh, World Cleanup Day boo seetee événement la boo xam ne dañ koy sumb ci àdduna bi yëpp. Mhm. ñëpp citoyens yi organisation. entreprise yi joxante loxo. Mhm. ngir euh, fésal seen bëgg-bëgg ci àdduna boo xam ne day set. Mhm. Euh, donc benn événement la boo xam ne day polariser vraiment attention bu bëri pour que ñu bëri nekk ci action. parce que bu ñuy wax waxu environnement ñu bëri dañ ci am ay xalaat ak ay gis-gis. Mhm. te gis-gis ak xalaat yooyu malheureusement du changer dara. te gis nañ ne action moo gën a am solo. te action yooyu bëgguñu daal mu doon action kese pour action dañu bëgg mu doon action boo xam ne. day créer leneen maanaam tey bu ñu dem démarrer ci setal mais ñu jéem a xoolaat naka la ñuy fexee ba mu bañ a saltewaat loolu mm-hmm. mooy premier affaire bi mm-hmm. deuxième ab bi te xam naa peut-être dañ ci gën a xuus euh, euh, mm-hmm. plus tard bu ñuy dugg ci ci waxtaan bi mais vraiment mu doon ay solution yoo xam ne si structurant d'accord parce que question wu set moom du du lu yomb lu complexe la waaw yow depuis quand nga ko initié fii ci Sénégal bon boo seetee euh, World Cleanup Day ñu ngi ko démarré première édition bi il y donc en 2017 donc parce que dañoo amoon benn rencontre en Afrique du Sud euh, ay ñemeetuma wax sax activiste léegi parce que mm. activiste dafa xaw a doy waar fi nekk nii <laughs> mais disons euh, ñoo xam ne daal vraiment ñoom set euh, bokk na ci li nga xam ne moo leen di tax a yëngu ko quatre ans bëri na bëriwul te gis naa ni euh, plusieurs pays plus de cent quatre-vingts pays dañ ko célébrer effectivement euh, Afrique euh, au niveau mondial Europe fépp ci àdduna si ni ñu ko célébrer c'est pratiquement euh, la même chose dañuy jël ay sachet di dem di ramasser di dugal di di du jël ay sachet di ramasser daal mbalit ci mbedd yi tey est-ce que jotul ngeen jàngal sénégalais yi Euh, ñu am culture euh, ñu bàyyi habitude boobu ñu am maanaam la culture du jeter par terre lu ñu jot ñu sànni ci suuf. effectivement euh, bon xam nga mënuñ ko yemale Sénégal rek comme ni nga ko waxee cent quatre vingt pays euh, on participé te fépp dañu for mbalit donc ça veut dire que fépp am na mbalit bu ñuy sànni. Mm-hmm. donc loolu du problème mu Sénégal kese mais c'est vrai que bu ñu xoolee suñu jàngoro bopp. effectivement fii euh, am nañ fi am nañ fi genre problème boobu. Mhm. lekk naan sànni lu yomb lañu. Mhm. Euh, dafa dem ba bokk ci suñu. ni ñuy doxalee quoi. Mhm. suñuy habitude suñuy habitude la voilà. yenn saa da ngay gis sax bon souvent da ngay dégg nit ñu ne la woyee c'est vrai amul poubelle mais yenn saa damay gis fu poubelle am nit ñi sànni ci wetam. c'est-à-dire que dafa doon culture boo xam ne il faut que ñu ñu ñu toggaat affaire yi. il faut ñu xoolaat suñu suñuy jëfin. xoolaat suñu consommation. Mhm. Euh, parce que loolu yëpp euh, boo xoolee mbalit bi du jug noonu rek doon mbalit. Mhm. tey jënd nga mbuusu ndox bu bu fekkee ni mbuusu ndox baa ngi ci mbedd bi bon dina am ñu ko jënd. Mhm. forcément ñu koy jënd bu ñu ko naanee après bu ñu amatul lu ñu ci def. Euh, la plupart du temps te kenn sensibiliser wu leen. Euh, ci problème yi nga xam ne plastique boobu mën na ko ko mën na ko causer. dañ koy sànni ci suuf. bon yenn saa sax da ngay gis ñoo xam ne sensibiliser nañ leen xam nañu. mais euh, c' une question de yenn saa laisser aller quoi dañuy jàpp ne bon mm. mbedd bi mbedd buur la am na ñoo xam ne war nañ ko bale di nga dégg toutes sortes euh, de commentaires kii euh, yuy tax ba keneen mooy responsable man sama consommation mm. te loolu amul sens c'est-à-dire que ku nekk dafa war mën a jël responsabilité am xam ne dëkk bi ñu ñëpp ko bokk mm. euh, donc comme ñun ñoo ko ñëpp ko bokk il n'est pas question que Euh, tey ñenn yi di ko salteel pour que ñeneen ñi di ko di di di ko di ko nettoyer. Mm-hmm. te deuxièmement tey dañu war a war a mën a comprendre ne ñun en tant que citoyen salte boobu ñuy am wala tilim boobu ñuy am ci mbedd yi. Mm-hmm. dafa am un coût économique. Mm-hmm. dafa am un coût économique am na un coût sur la santé ak yeneen ak yeneen ak yeneen l'attractivité de notre pays. xam nga tey da ngay jël dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne tourisme lay doxe ci lu bëri en tout cas bi tourisme amee mais boo bu fekkee ne étranger bu ñu ñëwee suñu dëkk ne vraiment teranga bi c'est bien ceebu bi neex na mais Sénégal dafa salte mm-hmm. kooku c'est pas une bonne image pour nous c'est pas une question d'ego seulement mm-hmm. mais ça un coût économique parce que d'autres pays aussi sont en train de chercher ces mêmes touristes-là et eux leur offrent la propreté en guise de teranga d'accord mm-hmm. euh, yow tey yaa ko initié fii ci Sénégal ngay un jeune Euh, pourquoi le choix de Gandiaye ndax Gandiaye dafa bokk ci zone bu gën a fii ci Sénégal Pas, pas du tout. C'est pas, c'est pas. Bon, d'ailleurs, ce n'était pas seulement Gandiaï, parce qu'au Sénégal, il y a eu plusieurs opérations. Euh, c'est vrai que dañu def benn focus au niveau de Gandiaï euh, pour la bonne et simple raison que bi ñuy préparer journée bi euh, def naa quelque tournées euh, bi ma rencontré euh, monsieur le maire de Gandiaï Pape Songué Diop dem nañu Gandiaï mu won ma installation yi mu amoon ak jéego yi nga xam ne moom def na ko ci wàllu. euh, mhm. recyclage euh, bon je dirais même dans un terme plus large peut-être économie circulaire mhm. c'est-à-dire tey jéem a xool mbalit bi naka lañ koy ñoŋalee de telle sorte que mu mën a am beneen njeexital bu dul sànni euh, à la décharge mhm. parce que même yow mi nga xam ne peut-être sensibiliser nañ la mais boo jëlee sa mbalit sànni ko ci poubelle bi ñu sànni ko mbëbës njëriñ bi bëriwul donc moom am na loo xam ne ay jéego yoo xam ne ñoom defal nañ ko ba am sant de Euh, am yenn euh, infrastructure yoo xam ne tegoon nañ ko donc ñu commencé woon di xool ci wàllu boobu lan lañ ci war a mën a def de telle sorte que njeexital bi gën a baax que buñ koy sànni mm-hmm. donc euh, deuxièmement il s'agit de décentralisation tamit parce que boo seetee événement majeur yëpp bu fekkee ne Dakar lañ koy defee euh, donc day fel day mel ni intérieur dëkk bi tamit duñ ko duñ ko duñ ko couvrir mm-hmm. te boo seetee toujours mbalit day ñëw ak développement économique mm-hmm. donc fépp fu développement économique am mbalit bi day yokk mhm. te euh, c'était une manière d'anticiper un peu pour jéem a xool Gandiaye qui est une ville nouvelle dont le maire une vision pour la ville ñu jéem a intégrer les les les les principes de l'écologie directement avant que Gandiaye doon ville bi nga xam ne monsieur le maire bëgg na ko mhm. voilà d'accord Pape euh, Goumbalo waaw <laughs> yaa ngi woon bokkoon nga ci affaire yi Euh, de manière générale organiser ngeen ko noo gisee organisation bi bilan positif ou négatif. Euh, mais organisation bi c'était c'était parfait il y avait une forte mobilisation ça mhm. c'est comme très encourageant on est allé avant def une campagne de sensibilisation et pour requinquer aussi les jeunes et le jour-là je pense qu'on avait plus de 2 à 300 personnes qui sont venues euh, c'était positif mhm. mais il y a du travail encore à faire d'éducation et de sensibilisation Parce qu'à un moment donné, faut pas que ce soit mécanique. Il ne faut pas qu'on arrive, qu'on enlève les déchets puis qu'on parte. Mm -hmm. Parce que j'aimerais ça avoir une photo de foofu ñu nettoyé woon est-ce que garder nañ ko propre ou pas c'est le gros défi. Mhm. donc mais en gros c'était oui euh, c'est une réussite. on est mhm. très fiers de cette journée en tant que qu'institution aussi parce que moi je en tant que partenaire institutionnel mm -hmm. de, de, World Cleanup commune de, euh, de Gandiaï parce que j'ai représenté la délégation générale à Dakar. Mhm. voilà. d'accord Mor waaw voilà donc euh, may rafetlu jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir mën a setal euh, dëkk bi. comme ni ñu koy mm-hmm. waxee tàmbale ko ci yenn gox yi. mais man sama problème moom mooy Sénégal à chaque fois dangay gis ñu gis jeune bu ñëw ne damay taxawal projet ngir xeex salte yi te.

esprit boo xamante ni peut-être dañ naan Sénégal amul euh, politiciens yoo xam ne dañ naan ñi ay écologistes lañ ñi ay lii ay lii mm-hmm. kenn ki nga xamante ne moom moo fi doon déplacé ay bu génnee sax di wax dañ naan ki dafa bëri wax mm-hmm. alors que euh, propriété ci moom moom moo moo am am njëriñ ci dëkk bi mm-hmm. euh, ima li mu wax sànq ne ñu faire le tri affaire yooyu Sénégal boo nekkoo sax trier sa mbayet sax danaa la aw ma jot ne fi di trier mbayet parce que ñoom lépp la ñuy jaxase mbuus yaag mbayet yu tooy yaag waasin tóor yaag lépp la ñuy boole te fi muy wax noonu gànjaay ni wax ne sa saltewul mhm. bon gànjaay bu saltewul jege na Kaolack mhm. Kaolack bokk na si dëkk yi nga xamante ne daal mën nañu wax ne mooy mbëbës ak Jurbel ak Jurbel <laughs> à part mbëbës donc mu nekk mu nekk projet yoo xamante ne ñoom mhm. peut-être ñoom ñu ngi est-ce que nekkul ne daa am loo xamante ne moom mooy xaw a manqué mooy lan mooy euh, seen euh, neutralité peut-être que ñoom bu ñu aussi dina am kenn koo xamante ne dañuy ànd ak moom ne diw moom moo moom moo tax bañ ñëw andi projet bi. Mhm. alors que dañ ko woon def loo xamante ni fu waaye jóge bu la neexee nga ni man politique gu ma def ma dara ab ab ab simple Baye mhm. ñëw naa pour bokk ci affaire bi. Mhm. mais boo boo seetloo ne am na kenn koo xamante ne nekk na si nga naan kii kanamu ki neexuma rek. kooku day dem ba ba nga xamante ni euh, daanaka du du du gis boppam ci ci projet yooyu mm-hmm. muy projet eh, eh, eh, ay projet écologiste lu si lu si mel mm-hmm. parce que gis naa projet yu bëri yoo xamante ne si wàllu wóolu jëm ay ay mm-hmm. setal am na benn boo xamante ne si bi la vivre dans l'eau ñi nga xamante ne si biir ndox bi lañ nekk ñu fexe nan lañu jëlee seen ndox seen kër seen mbedd yu taa yooyu ñu fexe ba defar ko ba ñooñu mën sa au moins di di toog ci mbedd yooyu mais ñoom ñi maa xamul ndax ndax am nañu loolu nga xam ne def nañ ko muy suivi yooyu nee 2014. Mhm. kon cela veut dire que ba nga ko ba nga ko defee 2000 xaw ma 2014 xaw ma 2017 ba léegi 2017 donc 4 yi nekk nii kon. Mhm. day mel ne kon dañuy nekk rek ci réseaux sociaux yi naan oui nous avons nous avons projet nous avons essayé de de nettoyer les plages de kii affaire te amul suivi bi nga xamante ni moom moo tax Sénégal amul esprit wu propreté. Mhm. Sénégal ci mbedd ngay gis sénégalais bu romb xaax tëf. ba waxee moo la mbedd mbeddum buur la. teg teguñu li nga xamante ne moom moo war wala boo nekkee ci oto dañuy naan café këpp la ko non dugg ci biir sax yor yor kaas café sax Sénégal nga koy gis am na am na yenn yoo xamante ne boo fa demee bu kafe sax naan da ngay dugg ci biir kaas ci biir bus ñemewoo ko mhm. ñoom laa xamul ndax ñoom ndax si seen seen programme yi seen programme ndax ñoom mhm. am na loo xamante ne ñu ngi koy def loo xamante ne dañuy dañuy dañuy évaluer li ñuy def. Mhm. même bu fekkee sax lu chaque année mais tous les trois mois. ñu jéem a xool ne ah euh, plage plage diw. wala place sangam wala fi mun mhm. dem euh, place euh, publique sangam wala fi mun dem jàkka sangam wala fi mun dem au moins ñu jéem a sensibiliser nit ñi ci li nga xamante ne moom moom mooy importance su triwu triwu euh, mbayit parce que tant amuñu amuñu esprit wu naan naan dañuy dañuy trier mbayit du mës a dem. te loolu de pays européen rek la am nag. non non la yor. cerveau la ñu yor cerveau xanaa peut être xanaa ñoom ñu am benn cerveau benn benn cerveau. xanaa ñu mel ni ñoom Stéphane peut être mën na indi bopp. non non nga may ko mu tontu ci loolu. non nga di ko def. Mhm. am bëgg-bëgg boobu di ko def. Mhm. mais peut être que am na moom kenn koo xamante ni ànd naa ak moom ci liggéey bi. Mhm. doo dama naa politicien bi mu àndal ci liggéey bi. xaw ma ndax den den nangu nangu ndax politicien la mais politicien bi mu àndal wala maire bi mu àndal am na kenn koo xamante ne sa koñ ba neexu ko ne maire bi neexu ma mhm. moo waral lii Stéphane def bu ma ci ànd parce que bokkuma ci parce que ka ma àndal neexu ma mu ñëw ci lool question bu bu am solo mhm. mais dama ciy répondre ci ay ay ay fànn yu bëri ok ok bon numéro un mhm. euh, dans ce cas yi pour Gandiaye association la bu xam ne am na mairie am institution am ay partenaires comme ñu mel ni Kirène ñu jàpp ci liggéey bi euh, am aussi les communautés. Mm. donc boobu setup boobu la woon. mais bu ñu demee gore tu as aussi le maire euh, am yeneen organisation au niveau de Hann bel le maire l'Union européenne et cetera et cetera am ay activités yoo xam ne ay Baye Fall yu mel ni maak yow. Mm-hmm. ñoo jug ne man damay bokk ci affaire bi. Mm. n'est-ce pas donc sans aucune coloration politique et d'ailleurs. pour tous les maires avec lesquels on a travaillé mm. amul coloration politique c'est-à-dire que ñun ci suñu démarche vraiment c'est complètement apolitique bu ñuy liggéey wàllu mbalit bi la ñuy toppatoo mm. n'est-ce pas ku ci mën a ñëw jàpp jàpp ci maintenant je peux comprendre que oui fii Sénégal nag yëpp dañ koy politiser c'est-à-dire que bu fekkee ne euh, jàpp nañ ne saa waay day politique donc euh, le parti adverse va trouver tous les moyens pour dire que cette activité là du ci dugg mm-hmm. n'est-ce pas mais là je pense que c'est une erreur c'est une erreur qu'on fait au Sénégal parce que am na loo xam ne euh, gis nga yow fu muy fu muy juddoo du jéem a xool ban parti politique nga bokk mm-hmm. n'est-ce pas ci boobu lay juddoo ñëw euh, jam ku gi muy màtt mm-hmm. pense que souvent faut réussir à transcender Mm-hmm. Euh, ces questions là euh, parce que politique ak ñuy bëgg a sonal fii Sénégal en passant. Mm-hmm. tout à l'heure yaa ngi nommé benn projet boo xam ne euh, man xamuloo ma te projet boobu man maa ko teg vivre avec l'eau mm-hmm. vivre avec projet bi ngay wax noonu boo xoolee ci projet boobu amoon na une très grande composante par rapport à la gestion des déchets donc projet boobu man lépp lu wàllu gestion des déchets man maa ko yore woon ci cadre projet boobu et il s'agissait d'amener le tri au niveau des ménage léegi si je devais en faire une évaluation aujourd'hui est-ce que je suis satisfait non pourquoi parce que question mbalit dafa sensible complexe du question boo xam ne da nga koy traité ci benn fan mu jeex parce que mbalit tous les jours la à la limite tous les instants chaque consommation créé na benn mbalit mm-hmm. donc bu fekkee ne amuloo njeexital pour mbalit boobu wala créé wuloo benn système boo xam ne suba dina am demande boo xam ne lii day tax ba dootul doon mbalit parce que mbalit mooy à la fin de la journée li nga xam ne kenn soxlawu ko n'est-ce mais bu ñu créer ay besoins pour euh, mbuus plastique boobu wala bouteille bi wala leneen ak leneen loolu day tax ba mbalit bi di wàññeeku de de toute façon nit ñi dañ ko dul considérer ci sax comme comme mbalit donc euh, comme lu complexe la souvent euh, pour ñun ñi nga xam ne loolu daf ñu intéressé dañuy jàpp ne du liggéeyu benn at wala ñaar wala ñett liggéey la boo xam ne di nga ko démarrer Euh, peut-être que revenu yi ngay xalaat ñun on le fait euh, dans le cadre de World Clean Up Day avec mm-hmm. Let's Do en tant que ONG mais man damay liggéey ci sama société privée boo xam ne ci loolu lay yëngu donc ñaari volet yëpp dama koy gis c'est-à-dire que activisme bi ñuy def wala euh, action yi ñuy porter moo xam ne une fois dans l'année lañ koy def ça c'est dans le cadre de cette activité là mais xam nga ne une fois dans l'année réglé wul problème mu mbalit mm. léegi il faut des solutions structurantes yoo xam ne vraiment c'est au au vraiment au quotidien mm-hmm. waaw mm -hmm. ouais, comment implanter le tri wax nga ko te li nga wax noonu c'est très très très important c'est-à-dire que mbalit mënul am njëriñ tant que trier wuñ ko mm. te Sénégal on passe à côté dañuy jaar à côté de beaucoup de choses ñun on était très on est que ñu ngi naan di lekk di sànni mais on est très en avance soo xoolee tey boo jàngee tuuti lu mel ni économie circulaire on est très très très en avance mais avance boobu ñu ngi koy perte parce que on de copier les autres ñu ngi leen di copier ba li ñu amoon nga xam ne tey c'est ce qui est moderne ñu ngi koy perte au profit de consommer comme les comme les Européens ou comme les Nord-Américains mmh. ñun on est on moitié des Nord-Américains mais volume bi ñuy produire comme mbalit en Amérique du Nord mais Afrique attanu ko mmh. parce que consommation bi c'est soutenu mais dañ koy gérer. mais mais li ma euh, fi ci mbedd bi xam nañ ne bu ñu mel ne ci am xaalis pourquoi defoo leen ko ci ci ci euh, euh, yi nga xamante ne au moins man mi nga xamante ne am naa benn matériel bu yàqu au lieu maanaam dama dama koy sànni xam naa ne bu ma demee tey ci point bële war naa ko mën am foofu benn benn njëgu ataaya ak affaire yooyu. sama sëriñ est-ce on est en mille vingt et un. première fois bi may transformer plastique di ko defar ay pavé on était en deux mais dafa laaj tamit état. des structures yoo xam ne ñooy taxaw xool ne lii wax nañ ci def ay jéego même si le produit n'est pas parfait au jour un mais bu ñu amee vision boobu dañ ciy def ay jéego ba indi ko à un niveau boo xam ne produit bi ça sort comme un produit normal bi ma ko defee 2009 2009 ba 2021 c'est finalement au Québec qu'on a pu faire de la recherche et développement ba finir benn produit boo xam ne il est impeccable et il se vend très bien mm-hmm. donc c'est dire aussi que dafa am question ou vision mm-hmm. c'est-à-dire que question wu mbalit boo xoolee dañuy dañuy ne dañ ko dañ dañ ci dañ ci euh, ñu ngi koy jox yenn importance yooyu mais en réalité non mm-hmm. te c'est important que le tissu industriel carrément se charge de ces questions-là parce que loolu mooy mën a tax mu créer benn demande boo xam ne li nga doon sànni dootul doon mbalit. Mm-hmm. te wax nga ko ci feeraay bi am na yeneen matériaux yoo xam ne tamit de plus en plus ñu ngi leen di récupérer mm-hmm. et yooyu dootoo ko gis day day day déclassifié wu dootul bokk ci mbalit. Mm-hmm. te pourtant secteur la boo xam ne ça peut générer plusieurs emplois mm. euh, tey moo Fall wax na ko projet comme euh, bi mu fi wax sànq euh, nga xam ne presque c'est tombé à l'eau <laughs> su ma ko mun mënee wax noonu mm. même seen woor Clean Up Day bi tey am na noo xam ne boo leen ko taxawee peut-être dina am yenn année yoo xam ne doo leen ko mën a organiser selon vous lan mooy solution ba pour par exemple projet boo leen teg rek ngeen mun ko wéyal Euh, je ne sais pas si je suis bien placé, mais mhm. Working partenaire. L'autre projet, je ne suis au courant vraiment, mais je sais que je connais Stéphane, très mhm. passionné. Mais comme il l'a dit, il, y a, il, il faut moi apport, appui aussi de la mhm. part des, des, des structures étatiques. Je veux dire que nous développe, ben instant, je le connais depuis des années, on se connaît à Montréal. Mais nous, en tant que en tant qu'institution, nous, on va accompagner ces gens d'action-là, mais il faut moi me suivi. c'est-à-dire que je l'ai répété tantôt faut pas que mu mécanique ñëw rek ramasser dem je pense qu'on a mm-hmm. besoin d'aller à la base mm-hmm. pourquoi pas dans les écoles sensibiliser nit ñi un programme environnemental est-ce que je veux pas parler politique mais est-ce que la ville de Dakar est-ce que l'État du Sénégal a un programme environnemental si oui mais il serait bien de l'appliquer et de l'adapter à notre façon de consommer on consomme pas comme Euh, économie circulaire on est les meilleurs je veux dire que waxu waxu réutilisation saa suñu maam yi dañ ko def ba ba sonn mm-hmm. man man écoute je suis de Gandiaye j'ai grandi là sama maam da doon utiliser benn bouteille pendant plusieurs fois c'est la réutilisation boo demee tey dans les écoles à Montréal loolu ñu jàngale les 3 RV c'est la réutilisation de la consommation le recyclage la valorisation dañ ko doon def mais on l'a pas conceptualisé et demuñu à la base je pense que ça prend je répète encore de l'éducation il faut qu'on éduque les jeunes. Mmh. Et c'est ces jeunes qui vont servir de courroie de transmission à la maison. Mmh. Et aussi, il faut qu'on nous accompagne avec des équipements. Mhm. Je veux dire que tu as pour banane là, que ce banane là, tu as besoin d'une poubelle pour tes coffres. Mhm. Est-ce qu'on est capable maintenant d'être accompagné à chaque euh, trente ou 1 km bu nekk mhm. nga mun a am benn ben exact c'est là qu'on doit commencer déficit boobu am na parce que s'il y a s'il y a une coloriage politique moom tu di nga am accompagnement. on est on très déjà monsieur voilà ça vraiment <laughs> on laisse ça au maire qui qui droit aussi de faire la politique mais nous. Euh, de toute façon moi je je n'ai la politique ici Stéphane très très apolitique on, on l'a fait par passion moi je je, je suis à la base. Mhm. j'ai fait des études en environnement j'ai vu l'environnement en tout cas en tout cas la plupart que je lu la plupart ci je vois des euh, institutions yu ñëw di jàppale nit si wàllu environnement c'est juste des institutions yoo français la ñuy nekk des Québécois non des Québécois c'est la première fois <laughs> des Québécois c'est vous allez voir résultat uh-huh. on n'est pas la France on est une diplomatie euh, québécoise mm-hmm. qui depuis 2016, on commence tranquillement à, à, faire du terrain et on va accompagner selon les besoins des populations qu'on accompagne. Mm-hmm. On est allé là le même jour, on a mm-hmm. travaillé, nous, nous avons des photos d'em, il sait, mm-hmm. on était sous la chaleur, on, a, on, balayé, on a ramassé, on était avec les jeunes. Et c'est ça la, la, politique euh, diplomatique du mm-hmm. Québec ou mm-hmm. en Afrique. Mm-hmm. en tout cas en tout cas on aura besoin de mais est-ce que aussi contextualiser ngeen woon euh, journée bi man euh, j'ai suivi sur les réseaux sociaux seen page gis naa photo mais je sais pas ndax euh, contextualiser ñu ak inondation yi ak période Covid bi parce que gis ngeen yenn zones yi nu mu inondé. oui mais boo waxee waxu inondation danga may touché waat tamit parce que man inondation mu ci commencé ci inondation la commencé. Mm. sama première action yi ma def Sénégal ci inondation la et dans la banlieue de Dakar donc du phénomène boo xam ne jaaxal na ma te inondation moom moo won en fait problème mu mbalit bi donc euh, quand vous dites contextualiser c'est-à-dire qu'effectivement euh, action boobu elle est tout à fait contextualisée parce que justement man bi may intervenir ci zone d'inondation dama doon gis ay zone yoo xam ne gaa euh, peut-être que foo foofu ndox bi mënugu fa jóge mais mbalit bi fa nekk problème la parce que mbalit beeg ndox bi bu ñu àndee mooy yoo mooy toutes les maladies hydriques et cetera et cetera donc population bi nga xam ne yenn saa day toog croiser les bras di xaar kenn ku ko jàppale war na mën a génnee mbalit boobu mooy numéro un. Hmm. n'est-ce donc loolu c'est des actions yoo xam ne. Euh, boo seetee te loolu mu ci peux vérifier euh, sur internet di nga gis les premiers les premiers clean-up en tant que tels sont arrivés avant le World clean Day man looloo tax Let's Do It euh, sélectionné ma pour que ma diriger cadre boobu ci Afrique parce que loolu man dama ko démarrer en tant que riposte des populations pour que ñu mën a qu'on se prenne en main parce que dafa am habitude boo xam ne avant mbalit bi dafa am habitude bu ñu am Sénégal mooy toog xaar toujours ñu ngi xaar kenn koo xam ne daf ñoo war a sauver te man toujours loolu lay expliquer nit ñi te peut-être c'est pour ça que je suis je reste apolitique c'est-à-dire que gëmuma loolu man dama gëm ne ku nekk il porte son destin dans ses boo jugul def dara ben dara du la fa fekk voilà Mhm. Euh, c'est ça euh, ndax am ngeen ay projet peut-être yoo leen di wàcc ci côté boobu. côté World Cleanup Day bi. mais c'est de continuer à sensibiliser donc je pense que ce qu'on a fait à Gandia il va falloir y retourner voir les résultats voir comment les populations ont vu ça. Mhm. Et là, on va faire aussi un cahier. Je veux dire qu'il va sortir quelque chose euh, qui va parler de la quantité, peut-être des déchets que nous avons ramassés, comment les populations vivent ça. Mhm. Et peut-être il y des et l'idée c'est de garder périn et très rapproché ces actions là mënuñ toogaat bu déwoon naan dañuy defaat beneen mhm. beneen truc mhm. donc l'idée c'est de garder ce momentum avec cette jeunesse pour que Gandiaye soit pro et Dakar aussi je pense que c'est beaucoup de travail affaire c'est pas des institutions c'est pas Stéphane c'est tout le monde en fait mhm. c'est c'est le message que nous devons envoyer à cette jeunesse quand je dis jeunesse mais la population c'est tout le monde ramasser neex na trop mais bañ a tilimal moo gën. moo gën. donc c'est nous notre euh, ben si tu me demandes c'est quoi la vision c'est de pousser ces jeunes à garder propre les lieux. Mm-hmm. et aussi que les États accompagnent ces populations en installant le matériel il faut il faut ma matériel. Mm-hmm. nit ki bu génnee mbalitam fan la koy def kan mooy jël si mbalit bi. est-ce qu'il y a des systèmes yu adéquats charrette boo xam ne mën na dugg dans une ruelle génne mbalit bi jox ko camion yi mu yóbbu ko parce que camion yi mën na dugg si mbedd bi. Mm-hmm. puis j'ai fait ma licence à l'école nationale d'économie appliquée de Dakar j'ai j'ai sur ça lépp bind nañ ko mhm. appliqué rek a des mhm. moi j'ai fait ma licence vraiment sur la gestion des ordures ménagères yëmbal bii mhm. loolu yëpp on avait proposé mais on est en 2021 comme on tourne donc euh, on lance un appel a quelque chose à faire il a du potentiel alors énorme énorme en en tout cas de euh, mbir mi yéeme na parce que vraiment euh, parfois di nga gis ñoo xam ne dinañ ne euh, dinañ bëgg def mais du ñu gis poubelle da ngay mun nga def plus de deux kilomètres trois kilomètres doo gis poubelle dans les garages boo demee ci garage c'est la même chose dans les marchés aussi euh, c'est la même chose bu la gën a salte rek nga ne ma bii la parce que mairie yi surtout ñoo xam ne ñoo war a gérer marché yi garage yi et tout du ñu def seen liggéey gis nga la faute elle est toujours partagée man dama on def nañu en 2015 si je me trompe pas def nañu benn projet au niveau du marché de Rufisque créer une équipe une vingtaine d'emplois euh, ñuy nettoyer di jël mbalit bi di ko valoriser mm-hmm. c'est pas impossible léegi souvent c'est le passage à l'échelle ñun en tant qu'entreprise privée là je parle plus au nom du World Cleanup Day je dis qu'entreprise privée bu ñuy def euh, ay jéego yu mel noonu c'est parce que dañuy tester ay concept dañuy xool est-ce que lii mën na dem euh, ci yan condition pour def li mu li li li Pape doon wax tout à l'heure pour revenir un peu au World Cleanup Day mooy toujours il faut ñuy évaluer xool est-ce que approche bi baax na est-ce que euh, li ñu li ñu def mën na gën a mën na gën a efficace et cetera et cetera parce que man vision boobu laa am hmm. c'est-à-dire qu'en tant que privé euh, comme xaaruma subvention wu état xaaruma ndimbal te du ma woyal kenn ay maamam pour mën a am pour mën a tekki. donc loolu leer na ma xam naa génn bi ni muy demee. pour man dafa leer nañ. da ngay da nga koy da koy ñafe rek ba ba ba ba que yéen aussi doo leen jël les devants ngeen def ce qu'il faut peut-être après état bu ñëwee mu mun leen appuyer. mais loolu la ñuy def. <laughs> non je veux dire euh, projet le fait de trier les ordures. Oui. fait que ñu recycler ko tout mais, ça. mais soxna si fi mu nekk nii. euh, Sénégal je pense que on a du sensibiliser mhm. plus de trois cent mille élèves que ce soit dans la banlieue à Dakar même euh, et même dans Vous les régions ça chaque année da ngeen di sensibiliser. mais ñun dans la partie RSE de de mon entreprise. Mm -hmm. il y a un programme d'éducation environnementale. boo xam ne chaque année mi ngi daw ci biir école yi boo gisee ñoo xam ne dañuy tabax ak mbalit mais loolu ñun ñoo ko fi indi. Mhm. mooy écobrique bi mooy bouteille bi nga xam ne. Euh, te peut-être solution la ma ma lancé waale ko ñi nga xam ñu ngi wër mbalit euh, euh, poubelle. Mhm. cest dire que bi ñu xoolee ñu xam ne la plupart du temps nit ñi dañu am problème mu fan la ñuy def seen mbalit. Mhm. mbuusu ndox bi nga naan tout à l'heure xamoo fan nga koy sànni mais amoon boo amoon benn butéel bu vide. boo xam ne wiccax nga sa butéelu ndox bi ba ndox amatu ci nga dugal ko ci biir butéel bi mais am nga poubelle. Mhm. am nga poubelle boo xam ne sa poubelle personnelle la boo ko dugalee sa biir saak dugg ci biir bus bi jënd benn café au lieu nga koy sànni ci mbedd bi nga dugal ko ci butéel bi mais sensibiliser nga bus bi yëpp. Mhm. ñëpp gis nañ ci loo xam ne war nañ ci mën a roy bu ñu bëggee baax. Mm-hmm. waaw mais bëgg baax bi nag sama. léeg-léeg nga dugg oto sax ñu <laughs> jël euh, dara sànni boo ko waxee mu indil la coow. voilà créer la problème bu dul jeex. <laughs> coow bu dul fay. tu que ça cette même bouteille on peut faire des murs on peut faire des, bancs, publics donc euh, non, y a une finalité. exactement donc euh, voilà ça c'était ça c'était programme. valorisation on ils la poubelle. c'est ça ça c'est le programme Ecobrick te boo seetee bouteille yooyu lan moo ci nekk ay sekit. ay mbuus euh, carton papier ay emballage yoo xam ne en général ça vous passe par les mains xamuloo loo ciy def yaa ngi wër poubelle boo ko sànni mhm. mais boo ko defee ci écobrique bi écobrique bi du coup ça devient une brique mhm. boo xam ne dañ ciy tabax mhm. tabax ci ay banc et cetera te d'ailleurs année bi Euh, en 2022 on veut lancer un programme et délégation du Québec on espère les avoir comme partenaires parce qu'on voudrait lancer un programme pour la bonne et simple raison qu'on s'est rendu compte li tax nit di def tey en tout cas au Sénégal du yàlla tax donc ñu ñi nga doon wax ne yàlla tax non no loolu du yàlla tax euh, la plupart du temps on a besoin de revenus parce qu'on parle à une population qui est souvent dans une certaine précarité donc te soxla na am ay revenus yoo xam ne bu fekkoon ne mi ngi jóge ci des comportements qui sont en faveur de l'environnement peut-être que match boobu dina mën a baax mmh. donc am na benn programme bu ñuy liggéey fi mu nekk nii pour donner cette valeur là aux déchets euh, à travers le programme xam naa dinañ ko sa dinañ ko lancé nga ne boobu defoo leen te yàlla tax ñun hmm. man dama ko wax ci départ bi man ça fait des années que je dis que bëgg naa tekki mais tekki ci loo xam ne dama koy def nii te ci mbalit bi lay jógee c'est tout à fait normal voilà <laughs> en tout cas ci continent africain bi d'après l'organisation d'après la banque mondiale plutôt ñu ne déchets yi fii en Afrique dina tripler d'ici à l'horizon deux mille cinquante. mais donc il est temps euh, surtout jeunesse bi ñu prendre les choses en main parce que du suñu nguur yi ma gis ñoo ñooñu ciy génnee parce que euh, ñun la. ak peut-être suñuy doom peut-être ñun suñu wéy peut dem na mais suñuy doom yi ñëw voilà ñu xam ban chemin lañ war a jël donc jeunesse bi maintenant ñoo war a prendre les choses en main def ce qu'il faut euh, pour que peut-être di si dix ans vingt ans du du comme Sénégal deux mille vingt et un bii ma xam. si foofu foofu ma ñëw ci laataa nga ñëw ci euh, monsieur affaire seen affaire Québec yooyu genre parce que ça sera un peu important mm. mais juste man problème moom même bu fekkee d'ici cinquante ans man je pense pas que le Sénégal pour mu régler problème mu déchet ça sera pas facile tant que amuñu esprit écologiste yi am fi parce que man set man xam euh, nga dañuy wax ne ay Rwanda naan Rwanda euh, ay temps dafa salte woon mais léegi doo dox sax ba mhm. gis ba gis mbuus. Mhm. c'est un exemple ah. exemple la. Uh-huh. mais Sénégal ci boppam pour nga pour nga gis nit koo xamante ne sax pour mu euh, da ngay naan café nii. boo ko téyee sax naan du ma ko sànni nit ñi dañ naan kii est-ce que mu ngi parce que yaa ngi may dàqal mais tu es obligé. mais dañ leen di ama. mais mais tout à fait. ama ku ñu amaan yow fi fi fi ñu naan na xaw ma naan amande ku urine ñu ku saw ñu ñu kii ñu kii la. des fois jërëjëf foofu la ñu ñëw ñu saw foofu nga ñëw fekk ñu kii ko ba mu bënd. c' est que Sénégal ñoom ñoo ñoo ñoo teg mécanisme yi. mécanisme yi ñoom ñoo ma faa côté boobu nguur gi la man nguur bi laay pointé du doigt. mais parce que nguur gi nguur gi amuñu amuñu esprit écologiste moo tax. Mm-hmm. ñaat yow fii ñaata euh, Sénégal est-ce que am na fi ministre bi yor wàllu économiste amu ko Aly <laughs> Aïdara moo fi nekkoon te à chaque fois ñu ne paa paa bi daa bëri wax feebar na ma nga France waaw Sénégal moom Sénégal ñoo amul esprit wu setal mm-hmm. setal bi yëpp sa biir kër la mbedd mi sa yoon nekku ci donc euh, je pense que euh, peut-être que avec l'appui sama gars yi nii waa Québec yi affaire yooyu je pense que mm-hmm. dinañ mën a demee tuuti mais bu dee suñu état yi may ma yaakaar tant que néew bind ci euh, xawma lan monsieur le maire lan ak lan ak lan soutien xawma lan pour le nettoyage de Dakar duñ ñëw ci seen xaar def ko ci parce que. amuloo amuloo njëriñ. attends bale bale bi yëpp si seen njëriñ seen njëriñ lañ ciy xool. attends lâche pas oui je suis d'accord mais mm. aussi. il y a les institutions, il y a des activistes écologiques, mais aussi il y a les médias. Et je pense que tu dois jouer un grand rôle dans ça aussi, de sensibilisation, d'information et d'éducation. Je veux dire que oui t'as une chance waxuloo ne c'est impossible t'as dit c'est pas facile mm-hmm. mais faut jamais dire que c'est impossible t'as mm-hmm. cité c'est des Africains comme nous non mais en fait pourquoi ils l'ont réussi mm-hmm. ouais euh, Rwanda du ñu africain non Rwanda sa sori na xoolal Gambie avec Yaya Jammeh c'est ça jeudi que école du am tout le monde dans la rue ramasser les déchets te boo sànnee dara dans les rues dootoo ko defati mais mais li ci Gambie du ci Sénégal <laughs> c'est ça de autant de Yaya parce que actuellement je sais la jeunesse je mm-hmm. pense que tu as un rôle à jouer mm-hmm. tu une voix vous êtes écouté je pense que c'est aussi les médias pour faire un grand rôle absolument mm-hmm. et, je questionne quelque chose parce que yenn saa toujours j'entends l'exemple du Rwanda euh, l'exemple de la Gambie. Mm -hmm. euh, J'entends des, des, exemples, bon, pas tous, parce qu'il y a le Cap Vert aussi, qui mm -hmm. est un mhm. pays qui est super propre. Mm -hmm. euh, quand ça tombe à la dictature pour imposer la propreté, euh, ça je, je, me demande, bon, est-ce que, est -ce que nous, au Sénégal, c'est ça qu'on veut mais il nous faut un président dictateur. Euh, bon ça c'est là moi. moi comme je suis débat la mais comme je suis démocratie. comme je suis apolitique man loolu man dama koy dama la koy dama la voilà loolu beneen débat la mais Afrique Afrique moomul moomul démocratie. <laughs> mais mais ma question c'est de savoir ñun est-ce que ñun en tant qu'Africain est-ce que ñun bëgg nañu ou en tant que Sénégalais est-ce que ñun bëgg nañu suñu dëkk. c'est-à-dire que man question boobu. Mm-hmm. c'est peut-être une question anodine mm-hmm. mais dafay laaj benn moment. Mm-hmm. ñu taxaw man bi Covid amee. dama ne woon ne bon voilà un temps de pause boo xam ne ku nekk. en tout cas war nga def introspection xoolaat sa sa sa sa dundin parce que peut-être xamoon nga ne di nga dee mais léegi wan nañ la ne dee bi mën na gën a gaaw. Euh, xalaatoon nga ne NBA du mës a taxaw ñu woon la ne noon am na loo xam ne mën na ko té euh, xalaat nga ne adduna bi du mës a du mës a pause ñu wan la ne non en fait loolu yëpp mën naa nekk. je pense qu'à un niveau personnel ku nekk war nga mën a toog. Mhm. xoolaat ñun suñu dëkk bii ñu nekkee nii ñun lan lañ ci bëgg. parce que euh, c'est bien de lancer la pierre aux politiques. Mmh. c'est bien mais quel type de citoyen nous sommes. Mhm. pour mmh. mériter nous on veut mériter des extra politiciens. Mmh. en étant souvent des citoyens pas très très. pas très engagé boo xoolee ñu ngi xaar ñeneen ñu ñëw defal ñu yenn saa da ngay ñëw di setal ay koñ mm-hmm. te euh, yaay booy onze mille onze années de set setal mm-hmm. ma xeetu set setal bu ne xeet euh, setal nañ ko mm-hmm. da ngay dugg ci koñ fekk jeunes yi ñu toog xoolal di ceene yow dañuy jàpp ne non gars yi ñëw nañu pour nettoyer quoi benn euh, benn exemple bu ndaw ma wala pour nga nëkk la Sénégal pour ñu jóge si salte du du yomb ña nga ña nga ñëwoon ci màggal gars yi def nañ nettoyage bu mag Euh, à la veille du màggal day gis ne dëkk ba nit ñi ngay gis ki yor benn kiyam yor di def saagam mbuus benn sachet génn saa mu yóbbaale ko ba këram nekk ma war maal dëkk bi war a feere mais foofu ci mbedd bi la koy sànni ak bu ñu génnee poubelle des tonnes de euh, tonnes mbayet ak këy dañuy génn ci ci Touba donc c'est-à-dire que sénégalais sénégalais moo am esprit yu taqal mais c'est mhm. contradictoire te loolu li ngay wax nii on est à quelques jours màggal du Touba mhm. mais man mënu ma comprendre ngay dem ci bërëb bu tedd di màggali ji nga sal nga nga nga nga tilimal ko ba pare. doy na waar moo faal cinq minutes moo ñu defee te Bachir Malé daa sob lool nee na daa bëgg euh, question bu mu bëgg a laaj. c'est vrai que bokkul ci <laughs> suñu thème bi euh, Pape Goumalo Dione mu bëggoon xam rek yow c'est quoi ton rôle yaay attaché aux affaires culturelles éducatives de la délégation générale du Québec. waaw ah, euh, mu bëggoon ci xam tuuti rek mooy Bachir technicien. Bachir merci pour la question Bachir. <laughs> Mon, en fait, mon rôle à la délégation, si attaché aux affaires culturelles et éducatives, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est rayonnement culturel de la province du Québec. Donc, euh, la faciliter par exemple les échanges culturels entre les deux pays, bien, le Québec, c'est pas entre les deux États. Mm -hmm. Exemple, en tant que technicien, bu ñu nekkee ci wàllu culture, culture bi c'est l'argent day dem littérature technicien yooyu. Tu veux par exemple profiter ou échanger avec un technicien québécois, par exemple, qui fait le, le même travail que toi, mhm. mon rôle à moi, c'est de faciliter votre échange. Mhm. yow tu peux te déplacer dem di xool moom nan lay liggéey studio am tu l'invites ici ce qu'on appelle des résidences croisées moom mu ñëw ci studio bi xool nan ngeen liggéeyee après ensemble vous créez quelque chose par exemple. Mm -hmm. dans le domaine artistique musiciens yi dañ koy def yu bari par exemple. Euh, un euh, Baaba Maal par exemple ne dafa bëgg a collaborer non un artiste ku mel ni El Hadj Diouf par exemple mhm. nous on peut les accompagner dans ça donc mhm. vendre toute cette grande culture québécoise mhm. beneen bi mooy l'offre éducative aussi parce que Québec dafa xarañ ci li ñuy wax formation technique et professionnelle c'est-à-dire foofu le jeune n'est pas obligé bu ko neexee du yegg à l'université bu dee dafa bëgg a def un raccourci professionnel day dem def une formation très technique après commencer liggéey Mm. donc euh, loolu tamit loo xamante ne la. non Bachir day ñëwaat ñu yaatal loolu. comme ça on va discuter euh, euh, pour pour kii am na loo si jot def gum fii Sénégal bi ay actions yoo xam ne def ngeen ko. avec kii Sénégal. Mm. mais bi nga xamante ne moom moo ci gën a récente boo xamante ne def ngeen ko instant bi comme avec waa Sénégal. instant bi je en profiter pour en parler instant bi gouvernement du Québec pour vous dire juste même day aider waale l'état du Sénégal dans l'employabilité des jeunes ñu ngi mm. nekk di wër cinquante électromécaniciens ak mécanicien industriel ak cinquante manœuvres yoo xamante ne les entreprises québécoises dañuy ñëw pour embaucher leen avec une immigration régulière bien organisée mhm. yóbbu leen Québec ñu liggéey mhm. donc on est aussi en train de parler d'une coopération win-win toujours mhm. usine école le Québec est prêt à, avec l'État du Sénégal comme ça on travaille ak des jeunes yoo xam te dañuy xëy dem jàngi mhm. ngoon suñu dem liggéeyi mhm. comme ça léegi bu ñu defee une formation le Québec bu ñu formé dix Québec mën na ñëw jël cinq yóbbu ñu liggéeyi État du Sénégal jël cinq fii aussi mhm. utiliser leen parce que aussi on veut pas juste venir prendre la jeunesse sénégalaise pour partir donc tout ça mais je pense qu'on reviendra et puis aussi ñu ngi def ay webinaire de recrutement yi jot ngi taxaw voilà a ngi taxaw comme sentinelle dafa war a ñëw journal <laughs> euh, voilà donc euh, émission bi jeex na ñu leen di sant rek di leen mm-hmm. gërëm bu baax a baax <laughs> voilà monsieur uh-huh. <laughs> euh, ñu ne monsieur le maire mi ngi soog a yegg si mais nuyoo rek moo faa nga may ko mu toog rek mu nuyoo Babacar ñu may la ñu ñaan la ñaar muy rek monsieur le maire Babacar may ñu deux minutes rek euh, monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Ah, ñu lay masawu de yoon bi dafa xat. waaw yoon bi dafa xat. <laughs> Ah, bi dafa xat mais vraiment amoon nañ fi une série de questions yoo xam ne bëggoon nañ la ko laaj. mais temps bi ñëw rajo e, e, Rewmi FM jaral na ma ko. waaw donc malgré tout. Mhm. j'ai tenu à présent quoi. Mhm. Euh, ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax vraiment euh, ci sa teewaay donte une minute euh, moo ñu desel mhm. amoon naa fi quelque question yoo xam ne mhm. vraiment bëggoon naa la ko laaj parce que yow ci wàllu propreté cet gi moom am na yu mu fa jot a jéego yu mu fa jot a teg mhm. lu ci mel ni am na coopérative de gestion des ordures à Gandiaye projet bi fu mu toll question boobu rek laa leen laaj ñu daal di yëkkati <laughs> bon coopérative bi mu ngi dox dañ ko liggéeyoon depuis 2011 lañ lancé processus bi. Mhm. ak sunu partenaire principal Caritas mu am ñeneen ñu leen si fekk si. AFD Secours catholique coopération belge ñoo ñëpp ñoo ñëwoon jàpp ci. Mhm. parce que projet pilote la. donc bi ñu paree ci encadrement bi jox ko mairie bi mairie bi moo ko délégé à la coopérative de gestion des ordures. Mhm. qui sont des jeunes qui s'étaient organisés autour des cellules environnementales de base quartier bu ne. Hmm. yore problème mbalitam alors ñu boole bu def société anonyme am seen capital di ko doxal. Hmm. muy loo xam ne am na création emploi c' est vrai que dans un premier temps ordures yi problème la. Hmm. mais tant bien que mal mairie mu ngi leen di jox subvention d' équilibre chaque année. pour que ñu mun continuer di gérer déchets yi. en tout cas projet boo xam ne mu ngi dox. Mhm. te mun na am yeneen ouverture aussi. Mhm. qui nous permettront de d' élargir un euh, le projet. d' parce que je sais que benn projet boo tëraloon la depuis 2014 ba nga toogee foofu. voilà moo tax may laajte mhm. comment se porte le projet mais yoon yemul ci benn monsieur le mais il est 16h. incha allah voilà Babacar day ñëw rek journal ñu leen di sant di gërëm bu baax vraiment. merci ci teewaay bi. merci euh, peut-être dinañ dellu si waat. on à votre disposition. saa yu ñu wooyee dinañ mën a. d' accord euh, merci beaucoup mu doon Pape Songué Diop maire de la commune de Gandiaye ak PCA du patrimoine bâti de l' État euh, ñu doon dalal itam Pape Goumalo Dione attaché aux affaires culturelles et de la délégation générale du Québec ak Stéphane Senghor. Euh, coordonnateur du World Cleanup Day euh, moo nekkoon initiateur bi fii ci euh, Sénégal ñu leen di sant di gërëm bu baax a baax vraiment ci déplacement bi di gërëm Mor Fall ma bokkul plateau bi ak Bachir bi féetoon ci capine technique bi mbokk yi jàmm ak jàmm